ginnaaw bu ñu leen nuyoo yéen ñëpp sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoo ngi leen di gërëm yéen mbokku taskatu xibaar yi ci teewaay bii ngeen teew fii pour taataan suñuy kàddu jëm ci askan wi mbokku senegaal yi nekk ci biir réew mi ak yi nekk ci jaspora ginnaaw waxtaan wu yàgg te yaatu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 te comme dañ ma tàggee ay tàgge yu bari ci politique te ba léegi may dund jàpp naa ni loolu duma ci bàyyi maa ngi leen di sant di leen. non non point de presse la point de presse la non

xew-xew bi xew-xew xew-xew xew bi c'est mooy xew-xew bi xew mooy lii nga xam ni moo am ci remaniement gouvernement bi loolu mooy xew-xew bi mais nag dafa am lenn lu ñëw dal ci suñu kaw dal ci kaw Sénégal muy génn àdduna professeur Iba Der Thiam comme nag am nañu opportunité mën a jaale askan wi yëpp jaale njabootam jaale ay jegeñaaleem jaale ñi mu àndaloon ci wàllu politique ak ñi mu doon liggéeyandool ci université bi jaale waa Sénégal yëpp loolu vraiment di ko ñaanal yàlla mu dajale ko ak njëgalam ak yërmandeem xare ko aljanna yi gën a kawe di leen sant vraiment di leen gërëm